asalaamaaleykum chers internautes Sénégal yéen ñi nga xamante ne yéen ñu taam di ñu suivre suñu plateforme yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal te leen ñaanal kenn dal ak jàmm depuis conseil des ministres balay weesu ñu gis ci ay nomination yi nga xamante ne kii di Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko def nañ ko nomination yooyu jur ay coow lu baree baree bare ci li nga xamante ne moom mooy langue politique bi ak société bi ñëpp naan Sonko dafa war li nga xamante ne moom mooy kàddu yi nga xam ne moom la waxoon ak kii di Bassirou Diomaye Faye waxoon ne appel à la candidate nga xamante ne moom mooy l'exclusif di ñu ci ñëwal wax waxee

bëri ci langue politique bi ak ñenn ci diine ji ki nga xamante ne moom mooy le public di ñu ci ñëw attaqué après sa sortie sur Pape Alé Niang Serigne Modou Bousso persiste Sonko a trahi son ba tey ca yéen kaay boobu di public kii di Serigne Modou Bousso Dieng di ñu xamal ni ñuy ànd ak Sonko ñoom ils sont allergiques aux maanaam képp ku leen critiqué ñoom bëgguñu loolu dañu bëgg lépp loo xamante wax nañ ko wala lépp lu ñu def rek nga ne gongo muy moo tax ñu falee ko fayee ko li nga xamante ne moom mooy RTS nee na bu fekkente ne li muy wax nii dañ koo jàppee ay attaque nañu jàpp ne moom pendant cinq dina leen attaqué du sonn du tay te lépp loo xamante ne war na koo wax mu def ay remarque ci biir gouvernement bi dina ko wax waaye nag jóge fa di tagg ki nga xamante ne mooy président Bassirou Diomaye Faye di ñu xamal ne ba mu ñëwee ca Touba la mu gis mooy nit koo xamante ne dafa teey nit koo xamante ne dafa yaru nit koo xamante ne ay waxam dafa dal ba pare discours am dafa neex a dégg di félicité ki nga xamante ne moom mooy général Moussa tey kii di Bassirou Diomaye Faye nee na mu honoré ci noonu la ñuy ñëwee ci la dépêche muy fësal li nga xamante ne moom mooy nataalub Serigne Modou Boussa Dieng di ñu xamal ne ci entretien exclusif bu mu am moom di ñu tiitreel docteur Serigne Modou Boussa Dieng sort du bois ba mu insister persister ba noppi signé ci li nga xamante moom mooy trahison wu bi nga xamante moom lay def allusion ca pal bi mu pal Pape Alé Niang ak yenn directeur généraux yi ñuy dikkal daal mi ngi jiixi jaaxa xel mi daal dalul ci li nga xamante ne mooy diplôme ba Imam Dramé am ci noonu la ñu ñëwee ci l' observateur l' observateur di ñu titré la courte vie des slogans de début de règne maanaam ki nga xamante ne moom mooy président Abdoulaye Wade dafa waxoon ne il faut travailler toujours travailler et beaucoup travail kii di président Macky Sall ñëwoon wax ne la patrie avant le parti gouvernance sobre et vertueuse ki nga xamante ne moom mooy Bassirou Diomaye Faye nekk le président actuel jub jubal ak jubbante les le clientélisme politique déviance maanaam lépp loo xamante ne digale rek buñ leen palee dañuy jël loolu teg ko ci ginnaaw ñu ciy samp bu laaj ndax réalité ya ñuy jànkonteel ca biir pratique ba moo ko waral wala déet ci noonu la ñëwee ci source a mu ñuy dikkalaat ci séminaire bi nga xamante ne gouvernement bi organisé woon nañ ko di titré le grand oral de Basse maanaam di leen xamal te di leen ñaax ci li nga xamante moom la un bon ministre wala am maanaam les fondamentaux la la disponibilité la compétence ma jéem ko république boo xamante ne dañ la tànn mu jox la li nga xamante ne mooy ndombay tànk ci réew mi pour nga doxal ko dangaa war a xam sa bopp am dignité ci sa bopp ba pare nag yaatal disponible maanaam pare pour nekkal fi ñëpp ba pare oyof ba pare am li nga xamante ne moom mooy xarañte ci li ngay liggéey kii nga xamante ne moom mooy premier ministre ba Ousmane Sonko ñëw feelu ko il a pas d'école pour former un ministre waaye kat ñoom ñi nga xamante ne taamu nañ leen ñu doon ay ministre de la république ñoom ñëpp yaakaar nañ ne loolu nga xamante ne kii di Bassirou wax na nekk na ci ñoom donc li ñuy xaar mooy ñu nekk les ministres de l'histoire du Sénégal chacun dans son domaine bi nga xamante ne moom mooy critique ñëw feelu ko gestion gouvernementale Diomaye formula di ñu xamal ne ci séminaire boobu gannaaw bi nga xamante ne Diomaye def na exposé boobu ba pare mi ngi leen di fàttali li nga xamante ne moom moo war lii di un bon ministre de la République waaye nag saa suñu dajee muy tay di leen fàttali li nga xamante ne moom la leen population bi di xaaree maanaam jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñuy dund te bëgg ñu teggil leen ko ci noonu Direct News récente nomination non évoquée en conseil des ministres nouvelle approche ou inélégance républicaine ñu ñuy xamal ne ci seen ndaje bee weesu am na ay nomination yoo xamante ne kenn fësalu ko te ñoom ñoo ñu waxoon rupture maanaam lépp loo xamante ne da doon am ci gouvernement yële passé te population bi xamuñ ci dara dinañ fexe ba di ko fësal muy xam lan moo xew ci li nga xamante ne moom mooy gouvernement ba ñuy samp ab laaj les nouvelles autorités ont-elles adopté une nouvelle approche concernant les décrets de nomination ci nomination moom mooy source à muy titre chantier e double XL de Diomaye maanaam réparer les injustices en cascade au sein du commandement territorial sous le défunt régime de Macky sal source à di ñu ci limal kii di Babacar Ibrahima Mar ak Modou Ndiaye ak ki nga xamante ne moom mooy Ibrahima Ndiaye ñoom ñëpp nekkoon ay préfet ak ay sous préfet ci régime mu sal mu dàqoon leen kii di président Diomaye Faye ñëw réparer injustice boobu fal leen ay directeur de cabinet du ministère des infrastructures ñii mun def leen ay gouverneur bi nga xamante ne moom lay amal ci diggante Macky Sall ak ñamu doon liggéeyal ñu nemmeeku buur ak bu mi ku mu neex fal ku mu neex dàq ku mu neex signer contrat ku mu neex yokkal salaire waaye nag ki nga xamante ne moom mooy président Bassirou Diomaye fay la mu nar mooy topp ci ay tànkam lu mu wàqi mu suulaat ko maanaam lépp loo xamante ne tey ji defoon na ko ci loo xamante ne jagul balaa muy dem kii nga xamante ne mooy Bassirou Diomaye Faye fas seen na ko réparé si noonu la ñu ñëwee ci l'évidence mu ñuy indil décret nomination réalisation Diomaye bureau de Macky kii quotidien di ñu dikkal la construction sur la corniche ouest Bassirou Diomaye Faye arrête tout ki nga xamante ne moom mooy euh, architecte boobu di Pierre Goudiaby Atepa moo ko fa wax kii di Vox Populi ñëw feelu ko occupation anarchique du littoral dakarois Diomaye et Sonko font arrêter toutes les constructions sur la corniche di nga xamante ne ñoom ñoo fa dëkk nekk ci domaine public maritime nekkuñu fi mu toll nii si jàmm kii di Pierre Goudiaby Atepa di ñu xamal ne le roi du Maroc a détruit quatre cent immeubles sur le littoral kii di Alassane Ouattara moom mën na koy xàll ci mu koy neex ba léegi muy sampab ci journal boobee comment le mégaré passe à un million cinq cent francs CFA di ñu wax ne ba mu bëggee tabax ci li nga xamante ne moom mooy littoral bi la ko Senghor waxoon di ñu ko fàttali ki nga xamante ne moom mooy le quotidien ñëw feelu ko suspension des constructions sur le littoral Atepa lâche une grosse maanaam li nga xamante ne moom Bassirou Diomaye Faye di président de la république def ñi nga xamante ne ñoo fa dëkk am fa ay hôtel am fa ay business mën nañ koo topp ci yoon ci toppum yoon boobu la ñuy ñëwee ci L'As quotidien mu ñuy xamal ne un avocat de Sonko explore la piste de poursuite contre Macky Sall pour haute trahison ci noonu la ñuy ñëwee ci tribune yéenekaay mu ñuy xamal ne lii di neen organisation des nations unies le Sénégal est-il en danger l'ONU nomme une émissaire spéciale à Dakar duñu xamal ne d'habitude organisation boobu di bu ñu nommee li nga xamante ne moom mooy émissaire spéciale rek xamal ne boobu dafa am crise ñuy samp bu laaj ndax Sénégal dafa am lu fi xew te yeguñu ko wala ki nga xamante moom mooy Sud Quotidien di ñu ñëwal le Sénégal un pays à haut risque di ñu ñëwal ci li nga xamante ne moom mooy trafic drogue li nga xamante ne moom mooy mooy blanchiment d'argent bi loolu nag nekk lu doy waar ndax bu ñu demee ba nga xamante ne lépp lu ñuy jàpp ci yamba beeg dorog beeg billet noir yi war a mun a toll ci ay milliards milliards yi milliards loolu war naa jaaxal ki nga xamante ne moom mooy autorité économique ci noonu la ñëwee ci dikkal écart tombe sur les routes du Sénégal série d'accidents meurtrières ki nga xamante ne moom mooy euh, OMS di ñu xamal ne vingt sept mille personnes sont victimes d'accidents sur la voie publique chaque année au Sénégal dont onze mille à Dakar mu ñuy xamal ne pour que nit ñàkk ci bakkanam wala jël ci ay laago yu métti dafay yomb waaye nag ñuy ñaaxaat suñu mbokku chauffeur yi ñuy daw ndaan day wax li nga xamante moom mooy suñu autorité ñuy utiliser wala ñuy appliquer li nga xamante moom mooy la sanction sévère parce que dafa mel ni mbir mi mi ngi bëgg doon tayef ñi ci ñàkk seen bakkan ñu ngi leen di jaale seen mbokk yi ñi ci am ay gaañu gaañu di leen ñaanal yàlla mu yëkkati leen ak jàmm ak salaam te ñu delluwaat ci seeni yitte ci noonu lañ leen di tàggoo yéen ñi safoo Sénégo Média di leen wax ne à la présentation Fambaye Ndiaye Badiane Abdou Khadir Diouf le grand technicien jërëjëf ñu yendoog jàmm